asalaamaaleykum à tous nos amis internautes de votre chaîne préférée Dakarnet di kontaan bu baax a baax ci topp bi ngeen ñi topp Ouzin ngeen di àndal ci seen émission bi nga xamante ni mi ngi tudd Guissé ak alors Guissé ak tey ñu war a waxtaan ak koo xamante ni macha allah dootuñu ko présenté ci réew mi euh, à travers pertinence am li nga xamante ni toujours daf koy def ay jàngat jëmale ko euh, ci situation réew mi tey ñu war a waxtaan ak moom un peu ci actualité réew mi euh, duñu wax tur bi dañu koy bàyyi mu présenté wu ñëw ci waxtaan bi. papa ñu ngi lay nuyu. sant bu baax baax maa ngi lay fay maa ngi tudd Cheikhna Keita commissaire de police bu retraité la c'est un acteur politique indépendant maa ngi ñaan yàlla lépp lu mu fi taataan mu jëriñ askan wi. est-ce que insulteur public est-ce que tamit waruñu ko may deuxième sens parce que vu que insulteur public war na Serigne euh, Serigne Mountakha Mbacké na mën a recevoir vu que ni moom jéggalu na est-ce que nit ñooñu tamit même bu ñuy làkkoon seen écran di saaga def la neex est-ce que waruñu leen baal tamit de temps en temps que bañ leen beddi ci suñu biir. non sëñ Mountaga war na recevoir ñëpp kilifa la ci réew mi kilifa la ci askan wi donc auteur bi muy am pour mën a boot ñëpp daf ko may mu mu mën a recevoir ku ñu gën a taqal loolu parce que foofu la nekk moom defarkat la defarkatu nit la defarkatu àddina la defarkatu réew la defarkatu askan la débat bi newul foofu dafa da ngeen poser question ni est-ce que dañ leen war a beddi kenn beddiwu leen daf nu nekk ci situation bi nga xam ni dañuy analyser ci biir situation bi lañuy ñuy analyser dafa am li nga xam ni nit mën na xalaat ni su ñàkkoon de moo gën ci situation bi mu nekk mais mu wax que c'est pas que dañ ko beddi parce que yoon sax du doxe noonu reykatu nit bi rey jël xol bi lekk su fekkee ni kenn reyu ko dafa am nu ko yoon di traité pour que ñu bañ ko beddi stigmatisation lañ koy tuddee ñu bañ ko ber au contraire dañ ko war a réinsérer bi biir société bi mais ni ngeen ko bugg tolérance bii ñu bugg def dafay encourager délinquance boobu mooy ñun ñu yaabaabal da ba saaga du booy suñu nopp ba ñun amatuñu valeur yi nga xam moo ñuy protéger par rapport ak li nga xam ni dafay nekk indécence il faut que indécence bi ñu ciy wax il faut que ñun ñu jàkkaarloog ñoom ni leen yéen de yéen gi def loolu wante tant que bàyyiwu leen nga xam leen ni am na leen wuutaleeg askan wi am na leen wuutaleeg réew mi parce que ci ay valeur la ñu tëdd ñun di analyser du beddi ça ne veut pas dire sela il faut pas nag ngeen bugg jaar foofu pour nekk pour wutal benn plaidoyer buy protéger ñooñu nu bàyyi li ñuy def parce que foofu du yoonu dara ñun judduwuñu Sénégal rek am ay saagakat su jékki-jékkee mu si sunu géew dañu war a seet lan moo ko fi indi est-ce que lu baax la su doon lu baax du am benn problème dañ koy bay dañ koy béyee Kédougou ba aéroport pour que mu gën a yaatu mais li nga xam ni ñun ñëpp d'accord nañ ni baaxul di saaga ay ndey di wax lu di n'importe quoi lan la defar ba ñun ñu war a créer situation bi nga xam ne dañ leen di këfin ku ñu tooñ am nga droit porter leen plainte yoon def liggéeyam mais comme dañu tooñ askan wi ci digg penc bi ñun ñëpp dañu war a réagir positivement mooy tere leen lii nuy def mais pas am fu ñu leen di déggee di ko tolérer pourquoi parce que ku mu neex nga def lii ba ñuy wut sax angle yi nga xam dañ leen di protéger tant qu'on sera a à ne pas à, à ne pas être rigide ak ñoom di leen protéger ils vont continuer comme ça du projet li ñuy def du projet amul fu mu jëm lu dul yàq lu yàq nag man damay taxaw ni lii baaxul alors bu ñu bu ñu gën a avancer euh, li ngay li ngay faral di dégg jamono yi ay propos yi nga xamante ne affaire ethnicisme la ku nekk naan xeet bi xeet bi surtout ma Madiambel Diagne et d'ailleurs moom moo bindoon benn article jëmale si loolu article boobu ak sénégalais yi ni ñu ko jàngatee yow nan nga ko gisee. man damay dama bëgg ñu teey foofu man je ne fais le procès de personne c'est-à-dire man du ma tribunal du ma kenn du ma attaqué ay nit li ma gis fii ñëpp di wax. ku nekk war nga mën a wax dañuy respecter point de vue wu nit ñi parce que wax ju nekk jib na fi wax ju doy waar bu nekk jib na fi am na keneen ku wax tey muy euh, le journaliste la kan wax na tey ah c'est la même chose il faut dafa mel ni euh, tey dafa am fi nga xam ni soo fa tegee sa tànk rek ñu dal sa kaw te kenn du la defendre am na ci biir waxu ma jàmbal li nga xam ni xel mën na ko nangu ak li nga xam ni mën nañ ko ko reprocher noonu la ñuy ci ñaar du dëgg ak waru ko wax parce que day yàq mais li ci xel mën a nangu dañ koy nangu d'accord ak moom ci loolu man boobu sensu débat laa gëm parce que fii lu nekk wax nañ ko fii tey tey tey da ngay wax ñu saaga la saaga sëriñ saaga politicien saaga ku nekk te ci fi muy amee fa la expression publique bi nekk fa la wax ji nekkee donc tey pourquoi est-ce que ñu bugg lu lu ordinaire mu bugg extraordinaire li ordinaire mooy ñëpp ngi wax nan fexe ba changer waat mentalité lu nekk di delluwaat ko place am man mooy sama analyse ci affaire boobu. Mm. mais est-ce que est lu ordinaire war na egg ci nit ki di wax ni tel bi joolaa la nekk moo tax jàppalewul kii nee na diw sama mbokk la est-ce que mots yooyu war nañ ko utiliser si. xam nga da ngeen tudd ma jàmbal man wax naa du ma def procès wu kenn pourtant depuis le début. dama ni bi Guy Marius Sagna duggee taxawee ñu jàpp ñetti nit commissariat mu daal di ne alkaati yi dañ lay laaj foo bokk foo sant mais c'est aussi grave que les propos de Madiambal mais presse bi jëlu ko du dëgg parce que police du fonctionner noonu dama la waxuma la waxu ay à peu près dama la du dëgg xelam la noonu la xelam toll bëgg-bëggam noonu la toll il faut que ñu ñemente wax du dëgg alkaati du taxaw naan la ban région nga bokk noo sant ba ba muy créer problème loolu amul ci articulation commissariat dafa am forme soo ñëwee dañuy teg benn téere wala ñu teg ordinateur salaamaaleykum maaleykum salaam noo tudd nii laa tudd tant tant tant non tant tant tant tu es identifié ñu wax mesure yi nga xam teg jàll kooku lay wax loolu amul beneen mission bu dul loolu amul beneen possibilité bu dul loolu loolu xajul ci post de police mais pour jaxase réew ak xelu nit ñi Guy Marius tàmm na loolu te kenn du ko wax dara ñun ñoo bàyyi suñu réew mi muy glisser ay activiste nekk fii di def lu leen neex di wax lu leen neex te kenn du leen wax dara te keneen su ne hën rek ñu dal ci kawam et ñoom ñooy orchestré li tax ñu dal ci kawam je ne défends pas Madiambal parce que dama ni la li mu wax am na lu ci xel mën a nangu wante mën nañ ko critiquer deux fois li mu warul wax parce que dafay yàq ak li mu wax te du dëgg yooyu suñ ko analyser dañuy avancer. donc dañuy daaneel ak Mamadou Ibra Kane analyse am bi noo ko jàngatee. analyse am c'est la même chose que moi j'ai par rapport à sa je je di que je ne fais pas de procès mais je donne le droit à la parole à chacun réaction yi dama bëgg li Mamadou Ibra Kane wax. ñu segg que setantal ko bañ ko attaqué les réactions yi nekk ay attaques man moo ma intéressé ci lii nanu bàyyi di attaqué nit ñi ce que Mamour Ibra Kane a dit peut se concevoir mënees na ko dégg mënees na ko mënees na ko comprendre parce que xel daf koy natt quand euh, on on me parle de quelqu'un qui a un profil nit dafay nekk nit di suñu ne par exemple diw c'est un insulteur public c'est un insulteur public ñun réew mi ci ay valeurs la ñuy dox suñu ne diw mi kat loxoom taq na ci lële loxoom taq na ci lii ñun réew mi ci ay valeurs la ñuy dox ak nu mu mënti doon lu ñooñu fu ñu mënti dugg ak lu ñu mënti def nit am na droit taxaw analyser loolu surtout nag bu dee journaliste analyser ko ñu ànd ak moom ci wax jooju parce que loolu dafay defar ànd ak moom ci wax ji dafay defar du yàq mais il ne faut pas que tey tey tey je suis étonné ñu gis ay nit yi nga xam ni tey man mënuma ànd ak n'importe qui man lii lii fi mu taxaw fi mu samp baaraamam yow mën nga fa samp sa baaraam su fekkee ni rek desee nga nekk sénégalais bu normal di dox ci ay valeur mais dañ koy muutuwaale et pourtant jour bi ma nee Sonko dem na ci euh, bërëb boobu dan ma ne lu tax nga koy wax tey nga dee lu tax nga koy wax tey nga dee deful dara sa je n'ai rien dit alors je respecte tout le monde et je voudrais qu'on respecte tout le monde quand quelqu'un se voit ouvert war a mën a wax ci nit parce que journaliste la pas parce que ñun parce que journaliste la dafay am ouverture pour mën a wax ci nit ki lii ak lii ak lii analyser situation bu keneen nekk pour partager ak population je crois que ñoom ñëpp loolu lañ def il faut pas il faut qu'on arrête d'attaquer les man de du ma nangu ma attaquer du ma fayu tamit ci façon boobu mais je suis certain que tant que j'aurai droit à la parole je ne me jamais à porter des jugements yu baaxul ci kaw nit ñi du ma nangu yi tamit di noppi à chaque fois que bon en fait bëggoon nañ gën a gën a yaatal waxtaan mais benn point bu ndaw la ñuy tëjee ma insulteur public boobu nga wax est-ce que insulteur public war nañ ko accuser terrorisme Tounkara mais c'est parce que da ngeen xam nga fi nga taxawee yow fi nga taxawee yaa ko tey nga dégg Tounkara man alkaati laay waxal alkaati ngay waxal mu ni fi nuy foog ni dan fay attaqué duñ fa attaqué danoo soxor ñun nii la ñu mel dañu ceci cela Macky buñ ko mënul jot ñu jot sëriñam dañuy rey dañuy dóor fu ñu lakk fii lakk fële mais génn c'est pas du terrorisme quelqu'un qui fait cet énoncé la ngeen ni c'est un insulteur chacun est libre d'insulter réew mi yàqu na bis bi ñu bàyyee insulteur di doxantu ñetti fan te kenn tëju ko il faut qu'on arrête ça nan delluwaat ci ay valeurs Sonko euh, Tunkara moom moo waxal boppam di terroriste la ñu bugg ko nag defendre nag léegi def ko un activiste lan mooy activiste les activistes son un problème et moi j'ai un problème particulier avec eux parce que dama bëgg sama réew te bëgguma mu yàq sama réew c'est pourquoi j'ose dire que c'est des terroristes c'est des subversifs xam nga luy subversif mooy ñi nga xam ni dañuy jaxase di jalgati pour que réew mi jaxasoo ordre am fi crise am fi te ñoom ñoo xam lu ñuy wut ci gannaaw loolu c'est mon combat moi par rapport ak ñoom donc li nga bëgg waxal la ko mënuma ko wax kii euh, Tunkara man de alkaati li mu wax mën naa ci jàpp ni terroriste la man alkaati li mu wax mën naa ci jàpp ni terroriste te ku am dégg-dégg war nga mën a ànd ak man ci loolu wala nga ñëw ñu discuter ga merci beaucoup